père Babacar Ngom ak euh, euh, waa Ndengeleer ñi nga xam ne dañoo bëgg a jël ci seen suuf yi justement après damay def benn distinction bu ndaw quoi distinction bi déjà moom mooy problème bi nga xam ne dafa opposé per Babacar Ngom ak ñi nga xam ne dañoo dëkk Ndengeleer c'est-à-dire dans no pays ci suñu dëkk yi ñun Sénégal et Afrique en général souvent dañuy jóg di porter les entrepreneurs locaux les entrepreneurs endogènes c'est-à-dire ñu naan kii sénégalais la nañ ko jàppale kii africain la nañ ko jàppale mais un capitaliste qu'il soit un étranger ou un sénégalais ne mérite pas le soutien de qui que ce soit déjà faut que cela soit très clair mu nekk un sénégalais ou un étranger ñoom ñaar ñëpp yem un sénégalais s'il est un capitaliste et capitalisme par essence li nga xam ne nag moom moo koy définir moom mooy recherche profit effréné recherche profit rek moom mooy li nga xam ne mooy définir le capitaliste par essence capitaliste moom mooy par exemple per Babacar Ngom bu amoon dix mille milliards loolu wàññiwu ko dara à chaque fois su xëyee day jéem a xool nu mu amee cent mille milliards cent mille milliards yooyu bu ko amee xool nu mu amaatee deux cent mille milliards te ci kaw amin bi mu koy amin même en niant sa propre base morale même s'il su ko su jaree mu dëgg ci ay nit jàll ci même su jaree mu rey ci ay nit am ko même su jaree mu génne ay nit ci fi ñu dëkk def ko da koy def kon nit ñi nañu teel a yeewu ci affaire yooyu moom moo tax Père Babacar Ngom il faut que les gens comprennent ces ces perspectives la et ces réalités là soit il doit rebrousser chemin il doit lever son pied bu levewul son pied que les sénégalais les les les sénégalais je suis en train de parler ñi nga xam ne ce sont des des sénégalais et qui sont conscients de ce qui se passe dans notre pays ils doivent forcément boycotter Sedima parce que mënoo gis ay plus de quarante famille ñoo xam ne loolu la ñu yor seen suuf yi la ñu la ñuy dundee ci la ñuy bayee ci la ñuy defee lu ne nga bëgg leen jël génne leen ci seen ci ci seen ci seen ay tool ñooñu lan la ñuy dundee. des générations et des générations vont être lésées von vont être sacrifiées au nom de quoi au nom de l'argent ndax xaalis jar na loolu ndax notoriété jar na loolu lan moo jar loolu donc en fait faut que les gens soient très très clairs qu'il soit un sénégalais ou bien qu'il soit un un français ou bien un américain un capitaliste c'est un capitaliste il ne mérite ni la sympathie ni la compassion des gens faut que les gens soient très très clairs à ce niveau Babacar Ngom Sidima yow pas yooyu noonu nga xam ne ñu ngi waaj a dee da nga leen a war a jàppale comprendre nga boo leen mënul dimbali nga bàyyi leen ak seen kër seen seen terrain lan moo tax ngay jël ay terrain ñoo xam ne maanaam ñu ngi ñu ngi ñu ngi ils sont au crépuscule de leur vie des vieillards de soixante dix ans des octogénaires ñoo xam ne ñu ngi ci seen seen dund léegi mu jeex nga bëgg leen a jëlee ci loolu mais il faut que les gens soient clairs quoi ces gens là ils ne méritent même pas le soutien des sénégalais ñuy nekk fii di taxaw naan ce sont des entrepreneurs ce sont des sénégalais na leen sénégalais yi ce sont des capitalistes c'est-à-dire moom mooy lan moom mooy les gens nga xam ne da leen di liggéeyal boo leen di liggéeyal maanaam yow l'ouvrier tu es dépossédé du produit du fruit de ton propre travail da ngay gis Sénégal nit day liggéey ci benn entreprise plus de cent ans plus de soixante ans plus de dix ans mais il ne peut même pas acheter un terrain yow nag sa patron yaa ngi koy liggéeyal chaque fois nga gis mu jënd oto bu bees chaque fois ay doomam ñu ngi jàng dans les universités les plus prestigieuses yow l'ouvrier maanaam tu as un salaire de misère qui ne te permet même pas de vivre dans des conditions optimales dans qui ont des entreprises et qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes qui, qui font la promotion de l'agrobusiness, je ne sais pas, de l'entrepreneuriat. Tu veux être un entrepreneur pour, pour, pour exploiter les gens, pour piller les gens, pour nier même la dignité humaine des gens. Mais au nom de quoi en fait moom moo tax genre pas yooyu jarul ñoo jàppale qu'ils soient des sénégalais ou des étrangers faut que les gens se lèvent bu delluwul ginnaaw ci affaire am mu bëgg a jël suufu xaw ma waa ndengaleer xaw ma waa lan la que les na ko sénégalais yi boycotté ku moo mënti doon ce sont les véritables combats c'est-à-dire que dans nos pays on ne sensibilise pas l'opinion par rapport à ces questions là par rapport au capitalisme ces gens là qui sont à la recherche euh, de de xam ne mën nañ laa jur xam ne ils ont ils ont ñoo xam ne yaakaaruñu lu dul seen ay tool ñoo xam ne ci seen tool yooyu ci la ñuy yoree seen sutura ci la ñu yoree seen ay njaboot ci la ñu yoree tay lu ne nga bëgg a ñëw taxaw ne voilà parce que tu as les moyens parce que le gouvernement est avec toi parce que tu peux te payer un bon avocat pour déposséder et dépouiller les gens c'est pour ça que tu le fais c'est pour cette raison que tu, tu, tu le fais en fait si nag bu nekkee yow tey yow yaa am sañ-sañ boobu que tu sois conscient de cela c'est grâce et par les Sénégalais que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui parce que ces produits bu ko les Sénégalais dul woon jënd doo doon tey li nga doon foo que tu sois conscient tey nag maanaam dëkk boo leen ko bëggee defar wala ngeen xam ne yéen a am da ngeen di teg yërmande ci li ngeen di def dëkk bu amul yërmande du dem que vous soyez loo leen mën ci doon mais am am leen ay milliards on s'en fout de ce que vous am leen ay milliards yu dul jeex lan mooy xaalis adduna bi nga xam ne maanaam këru waraakoon la ñëpp ñoom ñooy dee il faut que que vous puissiez à un moment donné sentir votre finitude vous êtes des hommes vous êtes corruptibles vous mourrez un jour bis day ñëw ngeen dee xaalis bi bi ngeen di dee da ngeen ko fiy bàyyi ay père Djili Mbaye ñoo leen ëppoon xaalis ku nekk mais ils sont ils sont où ils sont morts mais lan moom moo tax ngeen bëgg a dépouiller ces gens là pour combien d'années yéen boo leen nangoot suufu jàmbur yooyu noonu ñoom lan la ñuy dundee. seen ay doom lan la ñuy dundee et malheureusement vous vous avez construit l'avenir de vos enfants vous avez déjà construit l'avenir de vos enfants seen doom yi jàngeewuñu wuñu Sénégal aujourd'hui on a vu ta ta fille aujourd'hui c'est lui qui dirige ton entreprise xale bu ndaw suñu at la am mu ngi yor ay millions di ko teg ci loxoom mais ñun tey on n'a pas cette possibilité suñu papa yi tool yi ñu yor pour bay ci mun ñëw dundal yéen tool yooyu boo leen ko jëlee ñun ban avenir la ñuy am boo leen ko jëlee ban avenir la ñuy am. et qu'on est dans un pays où les jeunes ils ne sont pas assez conscients sur ces problématiques-là, sur ces questions-là qui sont posées un peu partout dans le monde. Le, le, le capitalisme est un système cannibale qui se nourrit de la du, du, en fait du sueur des gens maanaam ñun li ñuy ñàkk ñoom loolu la ñuy dundee ñun li ñuy ñàkk ñoom noonu la ñuy dundee ñu ko bàyyi ba kañ en fait soyez soyez conscient de cela Babacar Ngom Sedima soit il rebrousse chemin day dellu ginnaaw delloo paa yi seen ay. terrain seen ay suuf soit bu ko deful que les sénégalais soient euh, compatissants envers ces gens là qui sont dépouillés dépossédés de leur terre ñu boycotté Sedima xaw ma KFC seen ginaar yu bon yooyu xaw ma loo leen di jaay seen affaire yooyu noonu boo leen amul yërmande doon nit nit bu amul yërmande doon nit koo mën ci doon foo mën ci doog amal plus de mille amal amal nekkal nekkal multimilliardaire nit boo amul mille yërmande yow ban nit nga seen xaalis bi ngeen am ci àdduna la yema ah. fii nii la yem fii lañ koy lijjantee yeneen affaires yi non loolu yàlla la quoi des fois ngeen xalaat ci li ngeen di def yàlla yéen lan xam ne ñu ngi waaj de ngeen bëgg a jël seen ay terrain seen ay doom nan la ñuy def saay suñu waxee ñu ne Sénégal dëkku dëkku maslaa la quoi ñuy woon nit ñi naan dañuy maslaa dëkku maslaa la pour lan dëkku maslaa ñu am di gën di am ñiy ñàkk ñu leen di gën di beddi ñuy gën di sonn bu ñu leen woowee ci maslaa ñu ñëw ne nañ ko lijjanti quoi dem woowu benn waaju baax mu ñëw toog arrangé pour lan pour ngeen jël jàmbur yi Mais soyez sérieux quoi à un moment donné quoi. Ayez un peu d'humanité. S'il vous reste une once d'humanité, mettez ça euh, euh à, la la disposition des, des gens quoi. boo leen bu leen desee toute humanité mais jox leen ko nit ñi quoi ñu jëriñoo ko moo gën seen yi ngeen di def jaaraama jëf maa ngi jégalu